ñu xuus ba ca dëkk bu sell boobee di Touba ay fan a ngi nii nag ñuy jànkonteeg problème mu ndox ay fan a ngi nii seeni robinet dafa coupé seeni forage nangu te xelli loolu yi nag li ko waral ginnaaw bi ñu séq ak ñoom waxtaan li ñu xamal ne nañ ba léegi si ñuy àddu ngeen di teelu xamuñu lan moo waral yooyu le kuppiir waaye daal luñ leen mën a wax ay fan a ngi nii amuñu ndox li koy firndeel nag mooy vidéo bi ñu leen di bëgg woon ñu ànd dem seetaan ko ko mbokk yi metti gi foo ko takk jéggi na dayoo foo ko takk rek benn otom ndox daal buñ ko xasee gis ñëppay fëx ci wol coow li mel ni jàmm war nañ ñoo de ñun waa Touba lii nag mbokk yi comme ni ngeen koy gisee ci image yi mi ngi amee ci dëkk bu sell boobee di Touba ci quartier bu ñuy wax Daaru Marnaan la donte sax vidéo bi Daaru Marnaan la waaye wër na dafa wër ci Touba gi yépp la wër fépp foo dem ci Touba da nga gis ni dañoo daal di manqué ndox te kàddu yu benn lay doon sonn nañ si ndax nee nañu benn oto ndox dong rek bu ñu ko gisee bal ñu ko gisaat rek yàllaa xam te benn oto ndox moom la nit ñi ñëpp ñëpp di rang ngir mën am dox bu ñu yóbbu seen kër ngir mën koo jëfandikoo muy lu metti lu doy waar mbokk yi safoo suivre chaîne bi de AVS TV da leen di wax ngeen wéy di abonné tey activer cloche notification bi jërë ngeen jëf.